lañ fi nekk donc ñi diaboliser nañu diaboliser ñun léegi nii nga nekk si sa caméra di saaga wa mun nga wax sa ci euh, comment dirais-je euh, sa sa opinion wala li nga xamante ne li nga xamante ne yow gis nga ne vraiment c'est anormal nga dénoncer ko sans pour autant nga saaga nit sans pour autant nga diffamer nit ñun li ñu teg su Ousmane Sonko bu ñu ko tegee si ñoom tey kenn du génne dañoo barricadé barricadé ci këram pendant cinquante cinq jours kenn waxul ba sàcc portable bi nga xamante ne man ñii sax mun naa may portable waxuma la kii eh, pro Ousmane Sonko loolu yëpp fii lañ ko dundee. bu ñu doon wax fii policiers yi dañuy ñëw fii di ñu entouré du ñu am sax lu ñuy waxee kii indépendance ak démocratie weesul suba ba léegi ñu ngi fii wax kenn waxul leen dara dañoo wax seen kii eh, opinion kenn kenn dérangé wu leen donc fi des ñun. dañu teg réew mi ci yoon mhm. liñ ñu koy tegee ci yoon nag maa ngi lancé appel monsieur Bassirou jomaay fay juge yi fi nekkoon yëpp ak njiit yi nga xamante ne nekk na teg nañu opposition li nga xamante ne naka su noonu loolu na dagg yow yaa ngi fii da ngay jëlaati ñi nga xamante ne ay patriote lañ duñu ci e e kii faral nguur du ñu faral ki dëgg rek la ñuy défendre nga teg leen ci yoon parce que loo boo buggee teg eh, réew mi si yoon il faut que ñuy jiitu nga tànn leen comme lu ñu la tànnee yow que di nga doxal réew mi ci dëgg nga jëlaat say say say élément ñi dëggu ñu doxal réew mi ci dëgg waaw merci Inoussa merci beaucoup merci ah, alors gaañaa ngi génn ndànk par ndànk on sait pas nag lan